أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقت أرواحنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وقل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen bal xaq di leen bal di ñaan yàlla yàlla yàlla boole bal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xam ne ñëwaat nañ suñu émission bu am solo bi di yóbbalu koor tabaarakallahu nga xam ne yàlla dogal na génn nañ fukk yu njëkk yi jëm si fukk yi nga xam ne moo nekk si digg bi tabaarakallahu di njéggal yàlla yàlla jéggal ñu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu xam ngeen ne émission bi nag du ma ci wet benn yoon maa ngi ciy ànd ak oustaz Khalifa Diakhaté sunu soppi sunu xarit sunu mag tabarakallahu waaye nag di nuyu jiital nuyoo bi Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour mu yóbbaale mboolem kilifa diine yëpp xam naa noonu laay joxe oustaz mu nuyoo bu nuyoo mu noppi incha allahu rabbi ñu doog a tàmbali waxtaan bi oustaz maa lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alqail يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصل اللهم على المحمود سيدنا القائل في أحاديثه الشريفة صوموا تصحوا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عبد الكريم ñu ngi lay delloo nuyu di la ziyaara fa ويرو ci weeru di nuyu kilifa diine yëpp sëriñ Babacar Sy Mansour ak naataangoom yëpp sunu wéjur wa ca Touba Ndiassane euh, fa tabarakallahu Kaolack cene mm. ba laayeen ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara kilifa aada yi di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ñu dund ci teraanga sutura su sax dàkk àdduna ak àllaaxira ci barke yonent bi mm. di nuyu Seydina Alioune Badara boolum mu quoi suñu yaay boo yaa faatu fa tabarakallahu suñu technicien yu baax yi fa tabarakallahu seega ak euh, suñu mbokk mi fa tabarakallahu defe naa Mouhamad la di ko ziar bu baax a baax mi ngi noonu Abdul Karim yóbbalu koor waaw tabarakallahu macha allah yow Saaz nuyoo bi matale te am na solo xam ngeen ne mbokk yi ñu ngi woon ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne mbooleem ñi ñuy suivre yëpp ñi ngi ci topp waaye di si jàngat hmm. tabarakallahu te loolu léeg lañ ci nam te loolu lañ ci bëgg yal na yàlla def liñ ci jàngal ñu jëfe gi yàlla nañ ko àndandoo ñu nag yéen ñëpp. amiin jëfe ko waaye buñ ko jëfee bu noppi. yàlla ñu ci yàlla defal yiw. defal ñu sutura sutura defal nangul ñu ko yit ndax moom mooy nangu mbir kon yàlla nañ ko yàlla nangul si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu am na it mbir yu fi di mbirum politique bi. Mhm. yàlla dogal na jàll na si jàmm. Mhm. tabarakallahu yàlla na continuer noonu jàmm ji. amiin si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar bi ñu am ba teg fii tabarakallahu monsieur le président yàlla na ko yàlla may mottali yéene si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yéene yëpp tabarakallahu yàlla na doon yéene yu baax yoo xam ne day jëmale réew mi tabarakallahu kanam hmm. kon oustaz xam nga ne mbir yu fexe woon waaw fa tabaarakallah mi ngi noonu Abdul Karim fa tabaarakallah xam nga euh, jàngatoon nan ko mhm. ci wax yàlla subhaanahu wa taala ci biir alquranul karim tabaarakallah ba yàlla di wax yenent bi may jox nguur ku ma neex mhm. loolu tey yàlla waneeti na ko mhm. maanaam yàlla waneeti na boppam moo tax il est le grand wala il est le mooy ki màgg ki tabaarakallah mooy def lu ko neexit ah, ci façon bu ma ko neexee def ay kéemtaanam nag ay miracle am nga xam ni nit du ci man dara ndax lu mu def rek bu nee nit jàpp ci rek nit sabab la ci hmm. waaye moom mooy def lu ko neex fa tabaarakallaahu lii def fa tabaarakallaahu ci bu defee ku ci àndul it da ngay sonn hmm. waaw yàlla lu mu dogal da ngay eh, àndoo ci da ngay sonn yoti wala man alima ataahu wala ata li man ahi xibaahu sama turandoo borom banekaari bi loolu la waxoon fa tabaarakallaahu ca xurufu salaatil fatiham ba hmm. yooti yàlla mooy joxe wala manaa li ma ataahu lépp lu mu joxe nag kenn mënu koo teree am waaw mënoo wax a wax a wax mënoo ciiputu mënoo mënoo ba du am wala ata li manaahi xibaahu lu yàlla joxe tamit kamu ko jox yow mënoo fexe ba tere ko ah, lu mu joxewul tamit mënoo koo jël jox ko sa soppe mhm, kon fa tabaarakallaahu lii lu yàlla dogal la kon yàlla nañ jiglaay ci réew mi tabaarakallaahu ñun ñëpp ñu dund ci sutura teranga yàlla jaare fi nag def naataange ci réew Sénégal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu mi ngi noonu gaa yi mu mudabbiru umri huwa allaahu laysa laha mudabbirun siwaahu tabaarakallaahu moom yàlla subhaanahu wa taala ni ko oustaz waxee li mu bëgg rek ak nu mu ko bëggee loolay am mhm. ndax lii la bëgg it moom lu mu bëgg nopp ànd si rek tabarakallahu moo lay noppal kon yal na yàlla def mu doon réewum naataange amiin doon réewum sutura doon réewum barke si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rek oustaz xam nga ne ñu ngi woon tabarakallahu ci wàllum koor waaye sànq dafa am ku ma doon laaj benn mbir boo xam ne pour ku woor mu ne boo wooree wàccu ndax sa koor dafay yàq wala déet. Mm-hmm. waaw fa tabarakallahu koor dafa am lu koy yàq. Mm-hmm. mubtilaatu saw mi dafa am. Mm-hmm. lu yàq koor lu koy defar luñ ci sib lu xaraam. lu dagan. tabarakallahu yooyu yëpp dafa am ci wàllu koor ci chapitre la pa ndax chapitre par chapitre la. waaye bokk na li ci liy yàq koor. wàcc ba pare delloowaat ko. loolu bokk na ci liy yàq koor. moo tax lekk lu ëpp xaram Abdul mhm. Karim dëgg la xam naa la sañu maam Fàllu Mbàkke radiallahu anhu daan wax mhm. ni lekk ba suur këll waaw na mag rek la jik da daan wax ni këll mhm. mag rek la jik <laughs> waaye ndaw am na loo xam ne daf ko war a bàyyi xel dëgg la mag rek la jik nga lekk ba suur ni kuluñ waaye ndaw dafa war bu lekkee ba pare jóg te boo lekkee lu ëpp day war a sa yaram tayel doo war a mën a def la nga war a def ci sa wàllu jaamu yàlla say activité mhm. doo ko mën a def yu àdduna moo tax yonent bi siboon bañoon lekk ba suur dëgg la moo tax waxoon nañ fi xadis boobu yonent bi wax ni mhm. ñun ay nit lañ ñoo xam ni mhm. du ñu lekk te xiifuñu te bu ñu xiifee bay lekkit du ñu lekk ba suur këll dañuy mus rek pour am équilibre mën a taxaw moo tax ñuy bañ boo wooree ngay lekk lu ëpp parce que léeg nga lekk lu ëpp lekk gi ñëw nga sëgg rek mu jàll ci sa bëli loolu moo tax mu xaraam nag ndax biir hmm. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ ko ah. xaaj ñetti parti dëgg la fa sulusun hmm. li taami hmm. fa sulusun li sharaabi wa sulusun li nafasi dëgg la nafas mooy noyyi dëgg ñetti parti yooyu ñu ko xaaj nag benn bi pour lekk gi la benn bi pour ndox mi naan bi ci des nga bàyyi espace pour mën a noyyi mooy waral boo lekkee fi nga war a lekk ba mu ëpp day ñëw fi nga war a naan bu ëppee nag fi nga war a noyyi bloqué wu nga am problème mhm. tension bi daaneel na ko mhm. estomac bi daaneel na ko ulcère mhm. bi yëngatu na loolu moo koy waral parce que da sa biir dafa fat raccord yi fi noyyi gi war a jaar dafa fat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni lekk lu ëpp baaxul jullit di ko def parce que day day waral ay jafe-jafe ci sa wàllu santé moo tax boo lekkee ba suur ba waccu mm. waccu moomu nag am lu delluwaat ba nga yëg ni dellu na yow sa koor yàqu na mm. mais bu delluwaatul li nga yëg ni dara delluwul lépp génn na dem parce que mm. dafa génn rek dara duggul loolu koor gi yàqul mais li koy yàq mooy li delluwaat moom mooy yàq koor gi macha allah tabarakallahu kon dégg ngeen ko noonu boo waccoo boo amee lu delluwaat tabarakallahu mooy yàq sa koor waaye am na keneen ku moo xam ne man nax cuuraay yi taal si ba bëccëg koor gi ndax it dana yàq koor. waaw ba tey fa tabaarakallaahu xam nga comme yóbbalu koor la nag ah ñi war nag dañoo war am yóbbal. Ah, parce que yooyu yëpp fa tabaarakallaahu dañu koy dund. Mhm. saxaar yi. Mhm. pollution yi usines yi. nga xam ni da ngay dem dëkk usine boo xam ni day génne saxaar. Mhm. wala nga jaar foo xam ni dañu taal pono wala sébb. sébb mooy mbalit mu bari mu ñu dajare taal ko muy saxaar. léeg-léeg da nga koy gis mm-hmm. te du bëgg guddi sa ginnaaw kër wala sa wetu kër ñu taal ko fa saxaar si sonal la mm-hmm. bëccëg bi it noonu mm-hmm. léeg-léeg it xam naa fa tabaarakallaahu ku toll ku àgg foo xam ne dangay ngay defe ne moom cuuraay du dara nga xëy rek oh. lal sam néeg defar ba mu baax euh, euh, fomp fobeere jël cuuraay taal ci weeru koor yooyu yëpp am na ñu koy def waaye ñu xam ni saxaar soosu bu la sërëxee sërëx mooy saxaar si dugg la ba àgg ci sa biir xol jaar ci say bakken sa bët sa nopp dëgg waaw sa gémmiñ mm-hmm. ba dugg ba ci biir mm-hmm. kooku bu fekkee ni cuuraay la loo taalal sa bopp loolu la ñuy wax ni day yàqu koor dëgg mais bu fekkee ni nag pexe amul mm-hmm. par exemple jaar nga ci biir saxaar soo xam ne yow amoo ci pexe mu mu sërëx la boobaa jéggal nañ la ko jaar nga ci biir poussière boo xam ni raaraa nga jaar boo xam ni poussière bi bari na lool amoo ci pexe poussière bi dugg la koko amo ci pexe djéggal nañ ko djéggal nañ lako ndax ad darurat tubihul ma'zurat waye liñuy wax kañ moy cuuraay soo xam ne yow ya ko taal sa bir nek wor mhm. teud ci bir nek bi ba sebir, lalu dugg la mhm. ba dugg ci sa bir mhm. lolou moy yakko mais amna sax ñu ni dañ ko sip sib dëgg la am na ñoo xam parce que lolou ikhtilaful mazahibi la a imma yi wote wóote yi ñu wote moy waral ngay deg ñu ni li dañ ko sip ci koor li day yakko koor fa tabarakallah bu ko defé ñuy metu ci koor gi ak euh, saxar su bari si nga xam yow ya koy def mais kii togg moom kooku tamit baal nañ ko ko. parce que parce que parce que circonstance la. day togg na ci waañ wi di togg il faut mu def ko loolu ak dund ñoo ànd. Mm-hmm. saxaar sa kuy dugg kooku baal nañ ko ko mm-hmm. xet ga koy dugg baal nañ ko ko. même sax kii togg euh, Abdourahman may nañ ko. Abdou Karim mm-hmm. mu ñam. mais bu ñamee. ci làmmeñ wi lay yem parce que làmmeñ dara mën na cee eh, yem nga xam cafka gi mais bu mu jàll bu jàllee sa koor day yàqu dan ne la boo ñamee ba pare yàbbiwaat ko ndax xorom mhm. boo tegee sa làmmeñ rek di nga yëg cafka gi mais yàbbiwaat ko mais boo dugalee rek sa koor fa tabaarakallaahu yàqu na même tiflit mhm. boo ko dajalee imaamu Malik nee na boo ko dajalee ci sa gémmiñ ba mu bari mhm. parce que dafa am ñu koy def naa ñi mel ni man rek dajale ko ba mu kii mel ni koy gàllax ndi ko rek war a xaale boo ko defee sa koor yàqu na bu baree génne ko moo tax ñuy bañ ngay soccoo socc bu tooy ah. imaam Malik nee na bu ko def ci weeru koor parce que tooyaay bi mën nay am ndox nga koy wannaale bu baree rek ba nga yëg ni sa put gi tooy na kooku mm. day yàq koor ñu bëgg socc bu waw nga koy mm. soccoo ci weeru koor Abdul Karim tabarakallahu lu tax mu indi yi dafa am solo mm-hmm. parce am na ñoo xam ne ñu ngi def loo xam ne yàq na seen koor bu yàgg. mi ngi noonu. moo tax yii waxtaanee ko. Mhm. am solo lool. parce que mhm. barki démb dafa am ko ma kalaaj ne ma damaa bëgg ñëw taal cuuraay ma ne ko déet bul taal bul taal cuuraay. Mhm. parce que boo taalee cuuraay bu la cuuraay gi duggee. day yàq sa koor. mu ne ma am na yoo xam ne du am du am euh, saxaar. xet rek lay doon. boobu tamit. tabaarakallaahu nan la nan boobu lan la si lislaam wax. waaw xam nga fa tabaarakallaahu wut xet gu neex ci koor. xëy na sax mënul ñàkk. waaye yonent bi sax dañ ko sib. sib parfum def parfum nga parfum parfumé wu. Mhm. ci weeru koor dañu ko sib. parce que lañu ciy bañ yow la ñu bëgg ci koor gi. Mhm. ci nga yëg ni woor nga. say tuñ waw. Mhm. sa kanam sa kanam ras. sa biir nóox. sa gémmiñ waw. loolu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg. moo yonent bi waxoon ni. حلوف آه، حلوف فم الصائم ولا حلوف فم الصائم أطيب أطيب عند الله من ريح المسك من ريح المسك الله والله أطيب عند الله من ريح المسك الله أكبر ولا حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله أكبر xam nga gémmiñ gi nga xam ni dafa am odeur uh-huh. dafa am xet am na ñoo xam lay doon ci ñoom am na ñoo négligence lay dem lay doon ci ñoom waaye bu dee ci weeru koor yeneen bi nee nga xëy parce que gémmiñ bu ci dul boo dul lekk rek day am xet boo dul ñeppi di wax rek day am xet li ma dëggoon benn wax ko mu ni gars yi dee leen reetaan bàyyi leen moo ñóoral ñàkk day joxe xeetu gémmiñ am day tooñ waaye reetaan yu ëpp fa tabaarakallaahu nit yàlla dañuy wax ni day wawal xol day wowal nit ko xamni fun la fekk yaangi ngi keñ-keñi mel fas woowu di ñaxal te retano farata nit yàlla wax nañ ni day wowal xol parce que da nga bëgg di def ci sa xol mbekté fo toll te jullit warul mel non sama trondo serigne Babacar si radiyallahu anhu wax na ni musna dégg kuy xàq tay ci kër gi muni koku kan la waye dem len lajal mako ndax dañ ko dik aljanam dit deug la ba lu waral xaq taayam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samaam Cheikh Alhaaji Malick jàngal na ko nee na yonent bi daawul ree ba ay dégéjam di feeñ ay sellam ay dégéj waa mooy bëñ yu mag yi mm-hmm. parce que loolu li koy waral mu feeñ rek mooy xaqataay ba mel ni yow dan ne la suba ngay dem aljanna lu ko waral mm-hmm. ah. yonent bi da daan muuñ rek mm-hmm. تبسمون والله والله جل ضحك اله... نبي نبينا نبي الهادي آه. نينا يونت بي موغ مو اوبون سي لوم دان ديف واي داول ري با بني دي فيغ دغ لا لولو فتبارك الله بو دافاي نيو خامني خيتو گيمين لولو يونت بي نينا مو گنال يالا خيتو مسك يا خامني مسك ني مو نيهي خيت جي ني مو نيهي نيكوي جيلي سي سي غزال سي ول فلاي فلاي جوغي موتاخ ني تيدكو مسك waaye yonent bi nee na ki woor ba ngoon gémmiñam am odoor noonu mu jege la mu xeeñ mm-hmm. nee na jàppal ni xeet googu moo gën ci yàlla nga tuuroo parfum ba parfum bi xeeñ xunn foo jaar ñu ne li nga xeeñ neex na ci weeru koor mm-hmm. bu ko defee ñu xam ni weeru koor mm-hmm. parfi parfum daf ci da da araamu ci mais dañ ko sipp te lu ñu sipp nag nit ki bu ko toppee mooy dem ba yóbbu ko ci lu araam kon suñu gémmiñ yooyu odoor bi ñu ci santir sentir nañu yëg ni moo gënal yonent bi moo gënal yàlla subhanahu wa taala kon dafa am tabaarakallahu mufsidaatu sawm faxat waaw yàq koor rek koor rek nga da ngay fay rek da fay mais am na boo xam ne mhm. boo ko defee it mhm, mhm. boobu da ngay fay kafaara kafaara woor ñaari weer waaw tabaarakallaahu ñooy ñooy dafa jar a dafa am yoo xam ne ñooy yàq koor am yoo xam ne dañ koo sib am yoo xam ne dafa xaraam li ñu sib boo ko defee du yàq koor yàquwul maanaam bëgguñu ko daal parce que day wàññi sa yool lépp lu ñu sib rek shariatan buñ ko waxee mooy liy wàññi yool mais du tee li ngay def baax na mais lu xaram boo ko defee moom koor gi day yàqu en même temps dañu lay punir dëgg la parce que da nga jéggi da nga jéggi frontière punition boobu mooy boo fayee bis boobu ba pare ñaari maanaa ñaari weer nga koy fay dëgg la waaw shahrayni ni mooy deux mois ngay fay bis bu nekk deux mois nga koy fay loolu mooy kafaara ci ci weeru koor تبارك الله يونتيب صلى الله عليه وسلم دفو وخني للسائم فرحتان يفرقهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرحا تبارك الله اي خديس بوب يونتيب صلى الله عليه وسلم بغا واخ سمو يونتيب صلى الله عليه وسلم لول واخ باسكو دافني ادي وور جي امنا نياري مبكتي نياري مبكتي موتاخ وور ام سولو مبكتي مو نجهكي مي في تي ادونا لا مبكتم نيارل مي فله بو داجيك بروامم kon moo lay wan ni kii woor yàlla mën naa def ëllëg mu gis ko mu gis yàlla mhm. parce gis yàlla nag beneen affaire la waaw léeg-léegi ma wax ko mooy ki dem màggali Touba wala ki dem gàmmu Tiwaawan mhm. ànd nag waa daayira bi dem ànd ak waa dëkk bi dem mhm. mais moom bi mu demee ba def ay ziaraatam dem ci kilifa yi ci nit yàlla yi ziar mu jekki-jekki bëkk néegu sëriñ bi woo ko wala procham ni ko sëriñ bi de dafa la soxla woon daf la bëgg a recevoir yow yaay président Sangam wow waaw sëriñ bi nee na nga ñëw dëgg la ñëw ba ci buntu bi ñu ni diw egsi na ñu ni may leen ko hmm. mu dugg sëriñ bi recevoir ko dëgg la kooku may wax ni moom bu génnoon sax mën naa faf ñibbi gàmmoom neex na loolu mooy ëllëg yowmal qiyam bi yàlla pangee ba maxchar bi yàlla pang ñépp ñëpp dajaloo hmm. ñu àtte ba pare ñii dem seeni appartement seeni cellule ak seeni suite maanaam suite wala seeni appartement waaye am ci ñoo xam ne ñu ni leen yéen toog leen xaar borom bee hmm. leen soxla balaa ngeen a dem daf leen a bëgg a recevoir ñooñu dugg gisee yàlla ba pare doog dem seen i appartement ñooñu ñoo daq aljanna ñi ci des te pourtant ñëpp a ngi aljanna te gis kanam mu gis yàlla nag mooy gis kanamam gu te gu se gu sell gi waaw lillazina ahsanul husna wa ziyaada mooy la olof de wax wis bu njëkk da nga daan jënd gerte ba pare maire bi wis la waaw la ngeen ko waaye maire wis ma waay jaay na la waaw <laughs> wis la loolu fa tabarakallahu mooy moolu tax yoneen bi fii ci àdduna boo dogee ba pare contentement bu njëkk bi contenté bi mooy boo dogee ba tiim li ci palaat bi waaye nag ñun léegi mm-hmm. foofu mbégte gi daanaka day ëpp ah, ñun Abdou Abdoul Karim dañuy bëgg a li ñu rëccoon lépp ci bëccëg bi ndekki la dañ koo bëgg rattrapé mm-hmm. diggante eh, fi ñuy ndekkee fi ñuy añe lañ fay mus yu ndaw ndawaani ñu bëgg ko jël teg ci taabal ji ni ndogoo mm-hmm. bu ñu añ li ñu war a añe ci bëccëg bi jël ko teg ci taabal ji mm-hmm. diggante bi leen fii eh, ñam-ñam yin fii def ci ci diggante bi avant avant ñuy reer jël ko teg ci taabal ji diggante ndogu boobu ñu ndogu ñu jël yooyu yëpp teg ci taabal ji loolu ëpp na yow si si bi waaw fromage gruyère bi beurre bi gerte caaf gi bu dee waate waaw ni gerte caaf ñoom dañ koo bëgg moom la ñuy ndogoo fa tabaarakallaa lépp nga jël mhm. croissant bi mburu mi pain thon lépp teg bëgg ni da nga koy ndogoo loolu xaram na loolu ëpp na waaye ndogu li ci yonent bi wax mhm. mooy tàndarma boo ko amul wala ndox mu ñuul mhm. nga dogu julli boo mënee musaat dara nga mus ko ndax loolu mooy mooy mooy philosophie koor bu ko defee Euh, azkar yi nga war a def nawaafil yi nga war a def ci guddi gi te tawaat yi nga mën koo def mhm. mais boo lekkee ba suur mais doo sawar pour jaamu yàlla moo tax yonent bi ni ki woor am na ñaari mbégte mooy bu dogee ba naan kafeem mhm. loolu mbégte la parce que mhm. dog na kooram mbégte bi ci top mooy ëllëg bu demee ba dajeeg boroomam boroom ni ko koor gi nga doon koor tey ma woor gi nga doon woor maa la koy fay ndax moo ne woon mu lii wa ana ajzi bihi koor man maa ko moom maa koy fayal sama bopp loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni mbégte la Abdul Karim tabarakallahu ustaz am na solo lool xam naa nag fii la ñuy yemalee mbirum koor gi hmm. eh, li li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne asiyaam wal quran yasfaani li abdi hmm. yowma alqiyaam tabarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne koor ak alquranu karim dañuy ramm jàmm bi hmm. tabarakallahu aaya boobu mu def ne asiyaamu ayu rabbi munatahu taam wa shahwatuhu fa safaani fiihi wa yaqulu alquran muniatahu nawmu billeyli hmm. fa safaani fii fa qaala fa yasfaani hmm. tabaarakallahu loolu eh, sayiduna muhammad wax ci ñiy woor hmm. ak ñi nga xam ne ñooy jàng alquranul karim nga xam ne ñoom ëllëg alquran day taxaw ne yàlla may ma rek maram ma ko ndax moom maa ko tere woon nelaw guddi gi maa tere woon ànd ak soxnam tabaarakallahu kon may ma maram ma ko koor gi ñëw it ne yàlla may ma maram mu kii mhm. ndax maa tere woon mu lekk ci bëccëgu weeru koor bi mhm. maa tere woon mu naan maa tere woon mu def leneen ak leneen mhm. kon may ma ma ramm ko su ko tabarakallahu kon yooyu nag yàlla ñu ramm ëllëg amiin amiin amiin ci daraja Nabi sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin waaye am na loo xam ne tabarakallahu bëgg nañ ñu wax si tuuti balaa ñuy daaneel rek insha allahu rabbi muy wàllum sëy yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa jàngal nañu. Mhm. booy takk soxna. Mhm. ki nga war a takk mhm. nga war a takk muy sa soxna. tabaarakallaahu bëgg nañ xam yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ak yàlla subhaanahu wa lan la si wax. waaw fa tabaarakallaahu Abdul Karim eh, ci koor la ñu nekk waaye ba tey loolu it actualité la. parce que dund doomu aadama. dëgg la ba yàlla ne fankixu maa taaba lakum minan nisaa. takk leen li tey ci yéen. ci jigéen ñi. kon nga xam ni sëy confiance la. entre góor ak jigéen. yàlla jël ko teg ko ci seen loxo mm-hmm. nga xam ne képp ku fecc ci confiance boobu rek kóllëre googu rek war nga yàlla wallaahi moo tax sëy bu ko ñëpp jàppee woon noonu rek mm-hmm. yàlla mën naa dogal jaamu yàlla gin ciy wut ñu mën ko cee am mm-hmm. ndax yàlla bi mu bindee yonent yàlla aadam ba mu tëdd di nelaw coono bind gi jàpp ko ak uh, ruux gin ko doon sol ndax ruux dafa am dafa dafa am degré bi ko yàlla di sol ba mu egsi ci bakken bi mu tisoli ni e show yàlla ilham ko mu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla wax malaaka yi ni ndokkeel leen ko ñu ni ko yarhamukallah mu ni yaxfirullahu lana wa lakum moo tax shariatan jullit bi bu tisoolee fekk waxul alhamdulilahi rabbil alamin kim dendal du ni ko yarhamukallah il faut mu wax ko dëgg la parce que foofa yàlla mënoon na tee noogi noogi du delluwaat mu yem fa dëgg la yàlla mi la may nga tisooli ak tisooli ni mu neexe xam naa buur bala mu waxoon buur bu bew boo xam ne ku tissooli ci kanamam rek wala ëbbali mu jàpp leen rey déet waay ñu ne ko wax déet waay mu ne ah loolu dafa neex man rek maa ko war a def déet waay loolu métti na parce que buur yi dañoo bewoon <laughs> waaye yàlla fa tabaarakallaahu bind yonent yàlla aadam coono bi jàpp ko mu tëdd di nelaw fi mu hmm. tëdd di nelaw mu rocc ci faaru càmmeñam hmm. moo tax faaru gauche ak faaru droite tolluwuñu parce que gauche ci leen bind yonent yàlla euh, sayyidatuna Hawa hmm. suñu maam Hawa moom it mu tëdd di nelaw la yeewu moom gestu ci càmmoñam rek gis sayid sayidatuna Hawa mhm. ba kenam foytu wuti ko moo tax relation góor ak jigéen yàgg du tey de Cheikh El Hadj dégg naa daan na wax ni wéetaayu góor ak jigéen ñaar laa ci wóolu waaw mooy ci wàcce ci taabal ji am doom ndaw si ak waa ji wàcce ci taabal ji ñu xarfal ko xarfal pour xale yi mënta dégg olof mooy jongal jongal mooy xarfal waaw mhm. ah. <laughs> dégg nga mu ni ñaar ñooñu laa ci wóolu mhm. parce que kii di doog am doom talu ko kii ñuy doog a xarfal talu ko ku ko ci tal dañoo tal loolu mu ni bu dul loolu caas la ak safara wóoluwuma leen wala golo ci taatu garab yéeg ba wàcc mbaa bëgg a yéeg diggante góor ak jigéen dëgg la parce que aadama bi mu yeewoo rek bakkenam dafa foytu wuti ko mu nar ko mhm. teg loxo déedéet yàlla ni ko déedéet bàyyil ba ñu légaliser ko xatta tooti ya mahraha fekk jaxawoo can du la dagan dëgg la moo tax ñu ne laa nikaaxa bi gayri sadaq yonent bi moo ko wax sallallahu mm-hmm. alayhi wa sallam sëy bu amul can baaxul mm-hmm. sëy bu amul can baaxul mm-hmm. can yonent bi fa tabarakallahu indi ko wan ni tanga la ni su diinaar waaw mooy léeg-léeg da ngay dégg ñu naan mille quatre cent wala deux mille quatre cent wala deux mm-hmm. moo tax gox boo dem ñoom lañu def muy seen can mm-hmm. loolaay daganal sëy bi tey boo demoon ci jàkka tey <clears throat> imaam bi ne la fii jàkka ji li ñu fiy def can mooy cinquante mille nga ne awma ko non bu dee fële dix mille mm-hmm. boo joxee dix mille yi wuti ku dëgër bopp mu mayal la sëy bi baaxul parce que foofa loolaa fa am mooy seen mille deux mille quatre cent wala mille quatre cent fa tabarakallahu yàlla daganal seen diggante relation bi nag commencé dem yàlla ni ku góor ki yow ku jigéen ki def ko sa seetu. dëgg la waaw. ngay niitoo ci moom moo tax góor mooy seetu yàlla. si yàlla góor mooy seetoom. góor jigéen mooy seetoom. góor ak jigéen njaboot gi ñooy seen seetu te mooy seen environnement mooy njaboot gi ci yàlla di def. muy bénéfice. dëgg la yàlla ni nag kóllëre gaa ngi noonu confiance baa ngi noonu def naa ko ci seen diggante. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu ngeen ànd pour pour pour defar société. Mm-hmm. pour sos société. C'est la mission mission. pour cette société bu djup bu bax bu defar mission. Hmm. waye ku ki bu ko intérêt dougal ci gi bu ko intérêt dougal ci goor xamna la a wax. Hmm. seyup ñetti bammel ñene hmm. seyup ñetti bu nare am nan ko bàyyi. modi waji day ci gi. di ndaw si. fekk fa wala papa waaye ndaw si xale bu jigéen bi moom bëggul waa ji déet bëgg ko hmm. parce que nekkul ci xolam gisul xaalis bi moo tax sëy xol sëy mbëggeel hmm. le reste ay deuxième la rek ay détail la rek moo tax sëy boo xësee ba bëgg hmm. ki nga dem bu yorul ñàddiram mbëggeel gi mooy mottali li ci des même loo xiif xiif boo gestoo xool ko mbëggeel gi lay yóbbu nga fàtti xiif bi metti nag neexul nag nag neexul de woo <laughs> tax mbëggeel yombul de dañ koy wax nii rek mais yombul de ñun mbëggeel yi foyo foy xale yi léegi bëgguñu kenn bëgguñu kenn waaye waa ji nda yaay ji ni ko euh, bàyyil rek bu ma deewul deewoo xale bi deewul sëy bi dina am kon ñetti bàmmeel taxawul ah, waaye bu ñetti bàmmeel nara am nan bàyyi sëy bi sëy ñetti was la mm-hmm. moo di mbëggeel mm-hmm. yërmande mm-hmm. tranquillité waa ñetti yooyu mooy mooy mooy yor sëy mm-hmm. was mooy tànku cin mag ñee ko tudde woon was bu njëkk ba cin ñetti tànk la daan am léegi la gars yi nag yokku ci def ci ay ñeent juróom pour mu gën a mën a taxaw waaye sëy looloo ko yor wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma daf ne daf ne li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma moo tax yàlla ni tranquillité jigéen na ko moom moo koy defal góor mhm. góor ay jóge fële sonn lool jóge ca chantier ba tilim taq mhm. jóge ca bureau ba sonn xiif bu ñëwee jigéen moo koy recevoir tranquilliser ko dalal ko mhm. waaye sa jëkkër jóge chantier ba sonn xamoo lu mu fa jële xamoo journée baax naam déet sa jëkkër jóge bureau ba stressé wu xamoo yéen dossier la doon traité mu ñëw rek nga ne ko courant bi jeex na de kon mi ngi noonu saaku ceeb bi jeex na de yow kii bu dee yaa ko rey dama benn waay waxoon ndeysaan uh-huh. nee na ma dafa tëdd yore yore yore yore bëñ mm. ŋaaw ŋaaw uh, uh, lex bi banku tëdd fi mu ba nee na di di lox mm. jabar ji ñëw ni ko xaw ma looy def mais ceeb bi jeex na ak gaz bi mu ni bëreet <laughs> sànni fële ko <laughs> lim ko alawoon <laughs> dem ci bitik bi ni ko joxal ma ko ceeb ak diwlin ba ma jóg dem tëddaat nii mu kenn mënu koo tëddaale gaz bi ak ceeb bi jeex na kenn mënu koo tëddaale moo tax jigéen ñi il foo ñuy bàyyi loolu xel mm. fexe di tranquilliser góor ñi mm. bu nu ñëwee ah nijaay wàcce nga chantier métti na kat bureau tey métti na kat naka dossier yi waaye dalal waaye massa coono mba li mag ñi daan wax mba ndeysaan moo tax yaru mag fa am solo mais xale yi léegi ciikat ciikat ju bari joo xam ni te ñu ci bari du ñëw ko fekk ku la dàq ciikat ciikat yi Abdourahmane du dara mokkul pooj mënula a sëy xamul nu ñuy yore jëkkëram mm. du raxas ay tànk boo ne raxasal tànk yi ci paan bi waaw yëfi maam yooyu yëfi kaw ma léeg-léeg sama soxna wax ma ko ma ne ko moo tax mag ñi raw nañ leen sa jëkkër wàcc donte mm. intellectuel la bureaucrate la mm. mu toog ci fauteuil bi wala ci lal bi nga wuti bool boo xam ne spécialement la pour loolu jël ay tànkam yëkkati tàngal ndox mi nuggal ko na nugg nag bu mu tànk jër de na nugg xale yu jigéen ñi na nugg bu tàngee jër rek da ngeen koy gaañ na ndox mi nugg ba tànkam ñime ko mm. nga yëkkati ko teg ko ci say lupp say pooc mm. commencé koo fomp ndànk di ko fomp di ko di ko di ko di ko waale mm. jël serviette bi fomp gis nga loolu day wàcce coono moo tax ciikar ciikar yi di sol ay bodeg essayé leen ko ci seen gars yi rek seen jëkk waxuma seen far yi de seen jëkkër yi laa wax essayé gis nga ku ko ci defal sa jëkkër loo ko laajati mu jox la dëgg la moo tax sëy yombul léegi léeg-léeg nga dégg naa non sëy nangam ñaari fan ñetti fan mu tas mm. gis nga xale bu jigéen bu ci defoon lii mm. loo branché branché loo ciikar ciikar yi mm. defal ko sa jëkkër rek dëgg la dina xool di dina bëgg a takki ñaareel sax dina ko fàtte faf fa tabarakallahu moo tax Abdourahmane sëy dafa am lu mu laaj moo tax il faut mag ñi di waxtaan ak xale yu ndaw yi pour seen sëy yi ñu mën ko conserver mën ko téye bu defee yow ki nga xam ànd nga ak moom muy sa cheikh da nga ko war a yërëm toppatoo ko fonk ko jox ko la ko war a jëf waaw aashiruhunna bil maarufi yàlla ni na ngeen ànd ak ñoom ci njëkk ak teranga kon yàlla na yàlla defar sëy yëpp abdourahman amin incha allah tabarakallahu mbokk yi mi ngi noonu kon xusnul maachara hmm. war na tabarakallahu ku góor war na ko hmm. mooy nekkin nekkin bu rafet ak sa borom kër wala nekkin nekkin bu rafet tabarakallahu ak sa soxna incha allahu rabbi mbiri jeexagul dañuy teg foofu sunu baaraam rek incha allah bu ñu ñëwaatee dugg si koor gi àggaliwaat mbir mi incha allah kon oustaz xam naa lay bàyyi nga tàggatoo waaw fa tabarakallah mi ngi noonu kon yàlla na yàlla def jàmm di nuyu waa bitim réew yëpp mm-hmm. waa Europe fa tabarakallah Amérique Asie fu ñu mënti nekk ci àdduna bi mm-hmm. waaye waa Sénégal fa tabarakallah suñu gaal yàlla mm-hmm. yàlla def jàmm comme ni ma ko waxee woon rek réew mi yàlla na ko yàlla may jàmm may ñi ko yor tamit yàlla dimbal leen ñu mën koo teg ci jàmm boo defee ñun ñëpp ñëpp ñëpp ànd dund ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni yàlla ñu yàlla nangul suñu koor ma ko waxee woon tamit dara ci poche yi def dara ci nafa yi fa tabarakallahu ak lafi sër yi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah fa tabarakallahu mbokk yi mi ngi noonu ngeen xaaraat ñu si beneen numéro incha allahu rabbi nuyu xaaji Alioune Badara tabarakallahu sunu yaay Fatou ñoom seega ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci caméra ak régie bi ñoom Mouhamed ñoom ñëpp tabarakallahu yal na yàlla gën leen dëgëral tabarakallahu ustaas ñu nit yal na yàlla yokk suñu wér amin amin yokk suñu sutura yàlla defal ñu wér fa tabarakallah ñu yàgg a nag ah, soppe yi parce que bu ñu wérul nag duñ mën a taxaw pour mën a bégal soppe yi na yàlla defal ñëpp wér gi yaram ci barke ndax mooy lépp nag nit boo wérul doo mën a def dara boo amul jàmm doo mën a def dara la sëriñ ah, eh, Abdul Ahad Mbàkke daan wax radiyallahu anhu mm. lu waaye di def te jàmm amul di ko teg ci ba jàmm am yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi amin incha allahu rabbi mbokk yi mi ngi noonu kon mboolem yàlla suñu borom subhanahu wa fépp fu ñu ne nag yàlla defal leen fa jàmm ci dara jënd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk si diaspora bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal gis nañ bàyyi xel gi ngeen ñuy bàyyi xel gis nañ topp gi ngeen ñuy topp yal na yàlla defar seeni mbir yëpp si dara jënd bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu